أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يذيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله فإن الله أمر المؤمنين بالتوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقسم العباد إلى تائب وظالم وليس ثم قسم ثالث فقال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون عباد الله إن الله عز وجل دعا الناس جميعا إلى التوبة إلى التوبة الصادقة فلقد دعا المشركين إلى التوبة فقال جل وعلا وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ودعا إليها أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء والذين قالوا يد الله مغلولة فقال عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ودعا المنافقين إلى التوبة فقال جل وعلا إلا الذين تابوا وأسلهوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وكذلك دعا إليها المسرفين على أنفسهم بالمعاصي من أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فقال تعالى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم كما دعا إليها المؤمنين مؤمنين الصادقين فأمر الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتوبة بعد إيمانهم وهجرتهم وجهادهم وصبرهم فقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون بل فتح الله باب التوبة لأصحاب الكبائر ليتوبوا فقال جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom bi tabaraka wa taala mu ngi woo ñi gëm yàlla pour ñu tuub képp ku gëm yàlla képp kuy jullit képp ku gëm ne bis dina ñëw nga dajeeg buur bi tabaraka wa taala borom baa ngi lay woo pour nga tuub balaa ngay dajeeg moom moom yàlla mu ne yéen ñépp na ngeen ànd tuub ndax ngeen texe wa tuubu ila llahi jamian ayyuhal mu'minun baatu jamian kan la bàyyi ku mu mën a doon góor ak jigéen mag ak ndaw bu dee jaamu yàlla nga borom bi tabaraka wa taala mu ngi lay woo pour nga tuub dafa mel ne dañ ko laaj borom bi bu ñu tuubee lan lañ ciy jële mu ne laallakum tuflihun pour ngeen texe pour ngeen dugg aljanna pour ngeen réussir moom yàlla dafa xaaj jaam ñi ñaar ku tuub ak ku tuubul mu ne wa man lam yatub fa ulaika humu zalimun mu ne ku tuubul rek yow ci kàccoor yi nga bokk yow ci tooñkat yi nga bokk yow ci band yi nga bokk doomu aadama yëpp ñaar leen yàlla xaaj amul ñett nit ñëpp ñaar rek lañ jaamu yàlla bi tuub ak jaamu yàlla bi féetéer lu bañ a tuub kenn ku nekk fi nga toog xalaatal sa biir xol jëgal sa baaraam teg sa dënn yow ñaari xaaj yi ban nga bokk ndax ci ñu tuub nga bokk wala ci tooñkat yi nga bokk yal nañu yàlla boole ci ñu tuub mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala borom bi mi ngi woo jaam ñi ñépp la borom bi woo bàyyiwul kenn da annaasa jamian ila tawba sadiqa fa laqad da al mushrikin xoolal ñi bokkaale borom bi woo na leen ne na leen ñëw leen ngeen tuub li ngeen di bokkaale li muy rëy rëy rëy li muy garaaw garaaw bu ngeen tuubee ma baal leen fa in taabu wa aqaamu salaa wa aatu zaka fa ixwaanukum fi ddin wa nufassilu l ayaati li qawmin yaalamuun borom bi nee na bokkaalekat yi bu ñu nangoo tuub nangoo joxe azaka seeni mbokk lañ ci diine borom bi nee na maa ngi feram fànc aaya yi di leen leeral ndax bokkaalekat yi mën a tuub dellu siwaat ci yàlla tabaraka wa taala nekki mbokki jullit yi borom bi woon ahlul kitaab yahud yi ak nasaraan te mooy juif yi ak chrétiens yi yàlla mu ngi leen di woo ci alquran lan la leen yàlla wax mu ne ñoom ñi nga xam ne wax ji ñu wax wax munu gënu koo garaaw yàlla lañ ko wax te yàlla nee na wax ji li muy rëy rëy rëy bu ñu tuubee ma baal leen lan lañ wax ñu ne inna allaha faqir wa nahnu agniya yàlla dafa ñàkk amul ñun ñooy borom alal yi yàlla pauvre la ñun ñooy richard yi xoolal wax jooju ni mu réyee te yàlla nee na loolu li muy rëy rëy ñoom bu ñu tuubee ma baal leen waaye yàlla yemul ci lool ñooñu rek xoolal ñeneen ñi nga xam ne lan lañ wax ñu ne yadullahi maglula yàlla loxo bi dafa kët ndax lii wax gën na ko rëy yàlla nee na xoolal ñi lu wax li ñu wax li muy garaaw garaaw suñu tuubee ma baal leen allahu akbar afala yatuubuna ila allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim allah xoolal ñi li ñu wax rek ni mu rëy yàlla mu ne lu leen teree tuub ñu jégglu ko ñoom yàlla moom yàlla ñu baalu ko wallahi mu ne buñ ko baaloo danañ ko fekk moom yàlla huwal ghafurur rahim ndax yàlla ñooñu rek la woo wa daal munafiqina ila tawba woona naafiqi ñi nga xam ne dañ naan dañoo gëm yàlla ci seen làmmiñ te seen xol yi gëmul ñii julli julli lu ñii koor koor lu ñii jullit jullit lu te duñu ay jullit yàlla woona leen lu mu wax mu ne illa alladina taabu wa aslahu wa atasamu billah wa axlasu diinahum lillah fa ulaika ma almuminina wa sawfa yu'ti llahu almuminina ajaran azima ñoom ñooñu naafeq yi bu ñu tuubee ñu defaraat seen diine ñu baaxalaat seen bopp baaxalaat seen jikko baaxalaat seen melokaan wa'tasamu billah ñu ngëpp ci diine yi yàlla ñu sellal seen diine ngir yàlla yàlla mu ne dinañ bokk ak ñi gëm yàlla te yàlla tabaraka wa taala nee na ëllëg lu may fay ñi gëm yàlla ma fay leen ko ndax ñooñu rek la yàlla woo wa daa ilayha almusrifina ala anfusihim bilmaasi min ummati alhabib borom bi woon a kàccoor yi nga xam ne dañoo bokk ci xeetu sang bi muhammad defkati bakkaar yi njaalookat yi naankat yi sàngara yi senkat yi kartkat yi sàcckat yi ila axiri borom bi woon a leen mun a leen qul yaa ibadiya alladina asrafu ala anfusihim yéen ñi nga xam ne dem ngeen ba découragé ci kaw suuf yaakaar ne amatu leen kóolute yàlla du leen baal ngeen bëgg a continuer ci bàkkaar yàlla nee na déedéet dëpp leen bu leen ci nuur na ngeen yëg ne man yàlla su ngeen tuubee ma baal leen laa taqnatu min rahmatillah bu leen découragé ci yërmande yàlla yenn saa yi nga gis koo xam ne danaan man de xam naa sax su ma tuubee yàlla du ma baal déedéet saa yoo tuubee yàlla baal la benn waaye ngi ni bu rey juróom ñeen fukki nit la rey mu dem ci benn boroom xam-xam bu mag ne ko damaa rey juróom ñeen fukki nit ndax su ma tuubee yàlla dina ma baal mu ne ko déedéet mu rey ko muy téeméer mu dem ci keneen ne ko damaa reyoon juróom ñeen fukki nit ma dem ci benn boroom xam-xam bëgg a tuub ma laaj ko ndax su ma tuubee yàlla dina ma baal mu ne ma déedéet ma rey ko muy téeméer ma ñëw ci yow ma lay laaj ndax yow mii su ma tuubee yàlla dina ma baal mu ne ko waaw waa ji waxu ko waaw ngir ragal de dafa dégg diine mu ne ko da ngay tuub waaye da ngay changer milieu da ngay changer place da ngay changer fi nga doon dund da ngay jógee dëkk bi nga doon dund nga dem beneen dëkk parce que fi nga doon dund baaxul waa ji daal di jël décision jël ay bagages am dem ba war a yegg ci dëkk boobu balaa muy yegg mu daal di daanu dee ñu koy suul yonante bi mooy nettali ñu seen malaaka yërmande yi aljanna ak malaaka safara di ko xëccoo ñi naan aljanna la jëm ñi naan safara la jëm yàlla yónni benn malaaka na ñëw atte malaaka yooyu di ko xëccoo mu ne nañu mesurer fi mu jógee ak fi mu jëmoon fan moo gën a jege bu fekkee fi mu jógee moo gën a jege safara la jëm bu fekkee fa mu jëm moo gën a jege mu jëm àjjana ndax innamal amalu binniyaat yàlla fay na ko yéeneem lan mooy yéeneem mooy da doon tuub kon nañu rafetal sunu yéene nanu tuub nanu dellu ci yàlla Sénégal bakkaar yi dafa bëri mooy yàlla gi dafa bëri njaaloo bi dafa bëri carte bi dafa bëri def yaramu neen bi dafa bëri tiryaande gi dafa bari lépp loo wax rek daanaka egg nañ ci terminus dara waralul sunu dund gu metti gi lu dul rek ay bakkaar yu bari borom bi xamal na bépp xeet bu bari bakkaar yàlla nee na danaa leen teg sama yar bi wa inna rabbaka la bil mirsad mbokk yi borom bi tabaraka wa taala woowul ñii rek waaye woona ñeneen ñu dul ñii ñu ëpp ñii borom bi woona leen borom bi wax na ci asxaabul uxdud ñi nga xam ne dañoo jàpp jullit ñi di leen rey jël jigéen ñeeg góor ñi rey jàpp xale yi ndaw yu rey tàqale diggante ndey ak doom terewul borom bi nee na li ñuy def li mu garaaw garaaw ndax dañoo jàpp jullit ñi di leen lakk borom bi nee na ñi ko doon def bu ñu tuubee ma baal leen inna allazina fattanu almuminin walmuminat summa lam yatuubu fa lahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq yàlla dane ñi doon fitnaal way gëm yàlla yu góor yeeg yu jigéen yi te tuubuñu danaa leen dugal safara lan moo ñu intéressé fii lan la ñuy xool unzur ya abdallah ila qawlihi taala summa lam yatuubu maaza tasma'u fii maaza yufid yufid annahum law taabu taaba allahu alayhim li muy tekki na ñoom bu ñu tuuboon rek yàlla baal leen te xoole li ñu def gas ay kaaw jël ay nit góor ak jigéen di leen lakk ba xeet wa yëpp jeex yàlla nee na ñooñu li ñu li muy garaaw garaaw li ñu def suñu tuubee ma bàlleen allahu akbar wa haahum ahlu shirki والقتل والزنا يفتح الله امامهم باب التوبه مبقي اي بوكالي كاتا ني ньо خامني داني جامو خرم دي جامو اي بامل دي تاكي غالاج اي بيتن دي تاكي لام خول لين ديمب ديمب يين زياكار نانا يين ني سيتان تélé gis yeen ñuy ñuy xërëmal monument bi allahu akbar di ko xërëmal monument bi ñu koy xërëmal di ko reyal nag inna jël nag bi dugal ko ci géej saa ñu rey ko xoolal ñu étouffé bakkan bu yàlla bind xoolal bokkaale bi ni mu graawee ñooñu lu ñuy raf gis nga ni mu graawee yàlla nee na bu ñu tuubee ma bàlle bokkaale kat yi reykatu nit yi xoolal ki rey juróom-ñeen fukki nit rey téeméeri nit terewul yàlla baal na ko njaaloo kat am nangami doom xoolal tey li ñuy tiitaroo di jur rek te benn sëy takkuñu ko di am ay doom rek te takkuñu benn sëy yàlla nee na ñooñu li ñuy def lu mu garaaw garaaw walladina laa yad'uuna ma allahi ilahan axar wala yaqtuluuna annafsa allati harama allahu illa bilhaq wala yaqtuluuna annafsa allati harama allahu illa bilhaq wala yaznuun wa man yaf'al dhalika yalqa athama il- yudaaf lahu aladabu yawma alqiyama wa yuxladu fiihi muhaana wa yuxladu fiihi muhaana borom bi nee na ñi nga xam ne du ñu bokkaale yàlla du ñu rey nit du ñu rey nit koo xam ne dañoo araamal ku ko rey du ñu njaaloo képp ku ci def ci ñoom lii yàlla nee na di nga dajeeg sama mbugal mu méttee méttee métti waaye summa baada dalika yaftahu allahu lahum bittawba wa yaqul illa man taab وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما borom bi nee na lii li muy garaaw garaaw ñi ko def bu ñu tuubee yàlla dana jël seen bakkaar yooyu changé ko ay tiyaaba seen bakkaar yooyu li muy rëy yàlla dina ko changé tiyaaba yal na yàlla def ci ñun dégg ak topp اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه الحمد لله الحمد لله الرحيم التواب الهادي إلى الصواب غافر الذنب وقابل التوب سديد الإقاب يا عباد الله وهؤلاء الذين أدعوا الصلاة واتبعوا الصهوات يفتح الله أمامهم باب التوبة ليتوبوا ويقيموا الصلاة ويتركوا الشهوات ويقبلوا على فعل الطاعات فقال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أداء الصلاة واتبعوا السهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا borom bi tabaraka wa taala mbokk yi mi ngi woo ñi sànq julli ñi nga xam ne toog ci grand place yi di damier du ñu julli ñi nga xam ne toog ci kanamu écran télévision yi du ñu julli ñi nga xam ne toog ci stade di seetaan làmb du ñu julli di seetaan bëre ba doo julli toog di seetaan film ba doo julli borom baa ngi woo ñooñu ñi nga xam ne dañoo topp seeni bànneex borom bi ubbi na leen bunt buntub tuub mu ne bu ñu nangoo julli bàyyi bànneexi bakkan yi topp yàlla borom bi nee na dinaa leen baal borom bi day wax ak yonent yàlla muhammad ne ko dafa mel ne bi muhammad demee gaa ñu baax ñi dem am na ñu leen wuutu ñi leen wuutu dañoo topp seeni bànneex sànq julli yàlla nee na dinaan leen naan loo ñooñu sànq julli ñooñu lànk bañ a julli ndax ay seetaani làmb seetaan bëre seetaan film seetaan seetaan sànq waxtu yàlla yi yàlla nee na dinaan leen naanloo ñooñu dinaan leen naanloo ci dëttu wànjax waa safara bu leen yàlla di lakk ndox mi génn seen yaram deret ji ak dëtt bi dajaloo ci ay kondiir yàlla nee na ñiy sànq julli yëpp dinaa leen naan loo ci kondir boobu yàlla nañ ci yàlla musa mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala lu mel nii nag li muy bari bari bari bari yàlla naan damay baale bul jékki-jékki nga defa ne nag loo def yàlla baal la ba nga bëgg a topp say bànneexi bakkan yëgal ne yàlla wax na ne inna allaha sadidul iqaab noonu la waxee wa anna allaha alghafuru rahim wa qaala jalla wa ala ghafiri zamb wa qaabili tawb sadidul iqaab mu ne nabbi ibaadi anni ana alghafuru rahim ni borom bi ne damay yërëmaatee damay baale waaye noonu la waxee damay mbugale kon nañu moytu lépp loo xam ne day tax yàlla mbugal ñu nañ ko moytu yàlla dafa bëgg doomu aadama yàlla dafa bëgg jullit yàlla dafa yërëm xeetu yonent yàlla muhammad ba muy wax ci hadisul qudsi mu ne yabnu aadam innaka ma daawtani wa rajawtani gafartu laka ala ma kaana mink allahu akbar yow doomu aadama feeg yaa ngi may ñaan feeg yaa ngi may yaakaar maa ngi lay jéggal loo mën a def faalewu ma ko feeg yaa ngi may ñaan man yàlla feeg yaa ngi may yaakaar yaakaaroo kenn allahu akbar yaa ngi may ñaan yaa ngi may yaakaar ñaari baat ñaan yàlla yaakaar yàlla est ce que jeexul tey ci kaw suuf mu ne loo mën a def fa faalewu ma ko yabnu aadam yow doomu aadama law balaga zunubaka anaani sama su say bàkkaar yéegoon ba fees asamaan su mastaghfartani nga jéggaluma man yàlla gafartu laka wala ubaale dinaa la baal te duma faale loo def waaye kan nga jéggalu yàlla yabnu adam law annaka ataytani bi qaraabil ardi xataaya suma laqaytani la tushrik bi shay'an laqaytuka bi qaraabiha magfiratan limaza lidalika sammaytu nafsi ana alghafuru rahim sammaytu nafsi ana alghafur borom bi nee na yow doomu aadama boo bu say bàkkaar feesoon asamaan fees géej fees suuf nga jàkkaarloog man nga dajeeg man waaye tooñoo ma bokkaale woo ma yàlla nee na dinaa la baal doomu aadama ne ko yàlla lu tax mu ne ko looloo tax ma tudde samay bopp looloo tax ma tudde sama bopp alxafuru rahim kii jéggalaate kii yërëme benn waaye ngi ni boo xam ne musul jaamu yàlla musul jaamu yàlla tarfata ayn bi muy dee mu tiit mu xam ne bu dajeeg yàlla du baax mu woo ay doomam ne leen ban baay laa ci yéen ñu ne ko baay ju baax mus ngeen xiif déedéet mus ngeen mar déedéet mus ngeen rafle déedéet mu ne tey dama leen a bëgg a sant benn mbir xam naa ne damay dee bu ma dee na ngeen ko def ñu ne ko lan la mu ne su ma dee na ngeen ma lakk na ngeen dajale ay matt ngeen lakk ma ba ma nekk dóom ngeen xaaj dóom bi ñaari paan benn paan bi ngeen naawal ko ci ngelaw li mu dem benn paan bi ngeen def ko ci géej gi yëngal ko mu seey waa ji faatu doom yi def ko noonu lakk def ko ñaari paan benn bi ñu def ko doom benn bi ñu def ko ci géej gi allahu akbar borom asamaan ak suuf ne ko kun fa yakun waa ji taxawaat yàlla ne ko lu tax nga def ni sa bopp yaakaaroon na ne bu lakkee boppam jeex na yàlla ne ko taxawal mu taxawaat nekkaat nit taxaw ci kanamu yàlla yàlla mu ne ko waaw lu tax nga lakk sa bopp ba def sa bopp dóom lii nga def ko ci géej gi lii nga def ko ci ndo ci ci ngelaw li mu naaw mu ne yàlla bis bii laa ragaloon dajeeg yow rek damaa laa ragal rek ragal dajeeg yow yàlla ne ko baal naa la dugal aljanna allahuma igfir lana ma qaddamna wa ma axarna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta aalam bihi minna anta almuqaddimu wa anta almuaxiru la ilaha illa ant ya rabbi falaka alhamdu kama yanbagi li jalali wajhika wa la azimi sultanik allahuma igfir lana warhamna يا رب اغفر لنا وارحمنا اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأقم الصلاة